sëriñ bi daana wax ne yii saa dina geestu ab murit ba bëgg def ci moom dara fekk xasida yi defal ko ci loo xam ni la mu doon bëgg a def daf koy far ruus daf ko ci ruus a defar kon loolu ab soññee la buy tekki ni moo war na fonk xasida ngir dafay wuutu jëmmi Sëriñ Tuubaa ci moom waaw la jës nag mooy kitaabati kabati dafa jaara mooy sama mbind dafay këpp mboolem kàccoor yi wa fii sabilillahi lan ujaara mooy yoon yàlla kenn du ci rawante mm-hmm. kenn du rawante